jotaay bi dafa am solo solo bi mu am mooy dafa naa Cheikh ko wax wala Abdou Aziz ci jamono yi weesu ku ne déggoon na ni Benno Bokk Yaakaar réeroo amoon na ndax ñun nag dañoo dugg Benno Bokk Yaakaar 2017 2017 bi ñu président Macky Sall recevoir ñu ñëw ni dañuy dugg bennoo am na ñu ñu waxoon bu leen dugg bennoo de ñëw leen fii ñu boole ànd liggéey man leen man xanaa kon goree di lay doon bëgg a jàppale président Macky Sall doo daal Alioune Sarr kon loolu ay naxe moo ci ne ñu dem dugg bennoo ànd ak Alioune liggéey campagne 2017 fii la ñu dóor meeting boo xam ne département bi am na kaar yoo xam ne wàcc ñu bi ñëwee meeting bu rëy moom ministre moo ko présidé ñu continuer liggéey 2019 dem élection dem campagne dem gagné waaye nag ku sañoon da ngay am yëg boo bokkee ci mbir man tey su ma dee toog di xaar ñu woote réunion Benno Bokk Yaakaar monsieur Alioune Sarr toog ñun ñu toog ma ne man de Alioune Sarr mooy sama candidat waaye su ma toogee jékki-jékki dégg Alioune wax loolu ni moom candidat la man ndax dina ma neex baat boobu ma waroon a wax toog sama place wax ko suñ ma ko waxalee keneen wala keneen waxal ma ko loola man du ma neex kon loola man bokk na ci li ma naqari xañ na ak ñeneen waaye ba ñu demee tamit dem ba jub ci yoon xam ni am na ñoo xam ni fa jëm ak ñun fa ñu jëm ak la ñu taxoon a jóg doonu benn ñu dañoo taxaw taxawaay boobu nag moo indiwaat jataay bii ma gën a gërëm ko ci sant ko ci bu baax waxuma ñëw tey bi mu bàyyi itteem ñëw fekk si ñu waaye def jéego naka lañuy àndaate waxtaan ndey faatu fii mooy sa ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi waruñoo mën a xàjjalikoo ndax ñoo bokk luñ bëgg ci jobaas man loolu ku ma ko wax danga may gañe ndax nag jobaas rek laa bëgg moom laa gëm saa yu ma coowee walla ma wax lu dul noonu dama naan jomaas moo moo tax man ma wax ñu waxtaan waxtaanu biir ma ni ko nag la koy fesal mooy samay responsable yëpp laay woo ñu bokk ñëw ñu toog waxtaan ndax suba yéen ñii yéen ay voté yéen ñii yéen ay yi ñana ñuy voteel te li ñu bëgg nag mooy bennoo bokk yaakaar bu doon am ndamul fukk mu am ndamul fanweer loola nag du man maa koy wax ak Alioune ci biir néeg ndax du intérêt personnel moo ñuy boole intérêt communautaire moo ñuy boole communauté bii di Jobaas ñu bokk ko moo ñuy boole département de moo ñuy boole monsieur le ministre bu Ndiéguène daf ma woon nii dañoo bëgg ñoom département bi mooy directoire départemental des femmes di Benno Bokk Yaakaar ñu ñëw def ci déclaration pour gunge jigéen ñi ma ne ko ñun waxtaan nañu ba tey jii dañuy suñu responsable yi dañuy daje ak monsieur le ministre def suñu déclaration wane ni Benno Bokk Yaakaar ga ñu bëggoon te suñu caa génn amoon nañu lu ñu naqari réeroo amoon na réeroo nag su amee waxtaan a koy dindi waxtaan am na waxtaan ñu ngi koy yaatal tey ci kaw kanamu nit ñi kon seen ndaje boobu dañ koy fomm xaar beneen yoon. lay indi ci kanam lay am ci kanam mooy indiwaat directoire départemental ñu ñëw gën a jàppale ci jigéenu Jobaas kon loolu xew na fi bi ma sëy na bu woowee loolu laa ko tontu monsieur le ministre yaa ngi liggéeyal Benno Bokk Yaakaar. nekk ministre de la république ay tegtal la jobaas bu su ko am 72 ba tey kon ñun amuñu xolu kiñaan amuñu xolu soxor wax naa ko ci point de presse bi keroog soxore wuñ la ñun dañ lay tiitaroo suñu fierté nga ndax buñ nee ministre nangam ñu ne Alioune Sarr ministre bu yaru bi loolu la nit ñu bari di wax eh, Alioune Sarr ministre bu yaru bi yar ministre bu teey waa loolu nag bu bokkee ci ñun ñun ñu bokk ci moom dañ koy tiitaroo mais nag boo bokkee dara tamit di nga laaj lañ ca war a laaj taxaw te nañ ca war a taxawee bu ñu waree wax nga wax yow ci sa turu bopp kenn bañ laa waxal kon monsieur le ministre monsieur le maire Benno Bokk Yaakaar ñun mouvement ànd bokk jëmuwaay nañu sasante woon ne président Macky Sall ni ko dinañ la jàppale ji te ginnaaw Aliou Sarr loolu la ñuy waxaat tey fas yéene tamit élection yi taxawaay buñ ci war a am ñu am ko ci bëggu ñoo ànd bi yem ci yi élection dañoo sonn ci nii bëgg naa mu dakk tey fa toog Ndeye Fatou Alioune Sarr nañ déedéet xoolal loolu damaa bëgg mu jeex tàkk ndax amul njariñ te duñu yóbbu fenn xuloo day jeex defante tamit day jeex talatuñu ko tey département de Thiès bee laay ñaan yàlla nga dimbali ma ci commune par commune sama jigéen ñi ma jàppale leen bu comité consultatif nekk ci département bi ma dem jàppale leen loolu laa bëgg te loola kenn du ma ci gunge ku dul yow bu ñu jógee ci commune bi ñu dem fa part fédération de l' agroalimentaire de la région de Thiès ñu ngi may xaar kon nekk fii ci Jobaas di defante soxlawuma ko xam nga lu ma bëgg nga gunge ma ci comité consultatif départemental gunge ma ci fa part bu Thiès ñu am résultat yu baax jigéen ñi gën a doon benn gën a gis seen bopp ci nguuru Macky Sall bi kon lii ñuy wax di Jobaas bi rek lay yem jigéen ñi nag li ñuy wax dañ koy dëggal bu baax ñoom xadi bëgg seen jëra leen tax ñu taxaw ni day faatu nañ dem waaye nañ dem boobu ngeen ma dinañ ko ànd suñu càmmeñ Aliou Sarr na amuñu luñ ciy nëbbu waaye ñu amuñu luñ ciy nëbbu amuñu luñ ciy làq ndax dama ni décision ay kilifa koy jën kilifa yii li tax ñoom ñu ñëw toog ñoom ñoom ñoo ànd ci liggéey bi ndaw ñee la tax ñu ñëw toog Abdourahmane waxal na leen déy naa la ko ministre defe naa laata ko Abdourahmane di wax loolu sama itte la sama soxla la ndaw ñee wallaay bëgg nañ ñu jàppale leen ku nekk yaa ngi ak sa diplôme toog kër ma jamaa kër Amadou Diakhou moom damay rus sax man di taal lamp te ñoom taaluñu ndax jéem nañ ci lu ne kon loolu du ma ci dellu siwaat ñoom wax nañ ko bu baax mais jàppal ni la sama yaay bëgg dox ko ak yow ay kilifa bëgg ko dox ko loola man dama leen ci fekki amuma lu dul sama yaay sama yaay kese laa am kon la mu bëgg dama ko cay fekk donte day am ngaañ nag tamit dinaa ko ca fekk te yaakaaru ma ni dina ci am ngaañ kilifa yi ma àndalit la ñu bëgg dama leen ciy fekk jigéen ñi ma àndalit la ñu bëgg dama leen ciy kon jàppal ni bu ñu joxantee loxo delloo loxo ya rëkk ministre bu rocc dangaa gaaw ci bëmax waaw dëgg la ndax mën na laa nga defee xeer dangay daanu kon nañu yàlla suturaal jàppale ñu ba ànd bi dara bañ koo yàq ci kàttanu yàlla ak mbaaxam sant nañ kilifa yépp yi nga xam ni ku nekk dox na ci ngir bëgg Ndeye faatu njaay ak Alioune Sarr ànd ca yàlla rekk tax kon loolu nag tamit mënumaa ñàkka bañ a wax lu mel noonu